ngërëm ñeel na leen mbokki internet yi ñi safoo waaye itam yi ñuy bàyyi xel fépp ci àdduna wërngal këpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ama ci mbégte di ànd ak yéen chaque jour dañ koy defee actualité doon li gën a fës ci Sénégal ak biti réew waaye dañ ciy seetu yi nga xamante ne bu ñu leen ko àndilee dina am njëriñ waaye itam actualité yoo xamante ne jamono gi mi ngi def buzz sur la toile réseaux sociaux fépp foo ubbi rek à la une ñoom la ñuy faral di gis li ci gën a fës nag tey dañuy dem seeti li nga xamante ne mooy les journaux à la une source a daal di xëyee ki nga xamante ni mooy bombardier bombardier nag mu daal di mu doon koo xamante ni le B52 de Mbour kenn dootu ko présenté ci wàllum làmb alum li nga xamante ni nag mooy comme ba de ce fait que numéro 2 nee nag ba mu koy daan Balla numéro 2 amul lu mu waxut nee sax dafa feebaroon waaye nee ki nga xamante ne mooy Balla numéro 2 cette fois ci bul ut lay ndax boo ñëwaatee dama lay daan du suñuy kàddu nag Bombardier moo koy xamle tey ci li nga xamante ne mooy Jornal bi di source a ba tey l'observateur daal di xëyee tey li nga xamante ni moo jëm ak ki nga xamante ni mooy docteur Bousso li nga xamante ne nag mooy Covid bi ba tey fam nekkoon bërki démb ak bërki démb mën nañ ne mi ngi fi naam mi ngi wàññeeku waaye ba tey des na comme ni ñu koy waxee saa su ne beaucoup de questions sans réponse ki nga xamante ne mooy euh, ki nga euh, docteur Bousso nekkoon ganu l'observateur yemu ci andi na ay ponk yu amam solo jëmale ko ci li nga xamante ni mooy euh, coronavirus bi ak li nga xamante ne jamono gii ñi ngi ci muy li nga xam ni mooy grippe yi waaye utim xees xeetu sibir yi nga xamante ne dañ koy faral di nemmeeku yemuñu ca ba tey l'observateur daal di ñëwaat ci li nga xamante ne mooy affaire de mœurs bi moom mi nga xamante ne ab euh, basketteuse la woon daal di euh, réer lu toll ci weer donc mun nañ ne mujj nañ ko gisaat li nga xamante ne mooy ca yi donc mu doonoon koo xamante ne dafa réer ab basketteuse ay mbokkam ay njegeñaaleem ñëpp di ko wër ñoom nag jamono gii nag yoon mi ngi wéy la li nga xamante ne mooy enquête bi pour xam rek xale boobu nga xamante ne euh, naam dafa réeroon ab weer fan la nekkoon bataille de dañuy de di wax ci euh, actualité ba ak suñu journaux critique daal du ñëw ci à Dakar mu doon loo xamante abdon de sang la ndax dafa doon loo xam au Sénégal notre boo du ci hôpitaux yi malade yu bari li leen hôpital du leen lu dul ñàkk deret te gis nañ ne dafa manqué fi nga xamante Sénégal bataille tax na rek lançons un message à ak li nga xamante l'impact du Covid du coronavirus aussi gis nañ tamit li nga xamante def na ci réew mi actualité bataille tey nga États-Unis jamono gii nag macha allah ñi ngi nemmeeku ne célébrité yi nga xam ne ñoo nekk fii Sénégal ñëpp ngi ne DJ Boubsou egsi na ki na na Ndeye Kumba mooy festival boobu nar a nar a am Mbathio Ndiaye nag jamono gii nag moo yor li nga xamante ne mooy bës gi gannaaw sumbulu di waajal li ne mooy mariage bi gis ngeen ko noonu mi ngi def li nga xamante ne mooy fuddan donc di fuddan li nga xamante ni mooy tànk yeeg loxo yi waaye yemu ca mi ngi def li nga xamante mooy gommage lépp loo xam ne day taaral kanam gi rek mi ngi ci jamono gii nag nee na lii lépp nag kenn moomu ko kuddul Njaay Ñas Njaay Ñas nag mooy borom këram di bàyyi Njaay Ñas doon loo xamante ne jamono gii bës bi mbaacu mi ngi ko tëyee ba tey Pendo Guissé 9 mois de mariage ou 10 mois de mariage li nga xamné moy sey ba dal dinay tass dem euh, Pendo Guissé nak doon ko xamante ne Sénégal dañ ko baye xel ndax ay woyam ndax ay tass mais cette fois ci mën nañ japp ni mariage ba tass na moo fi defoon mariage buzz bi nga xamante ne moo jëloon micro bi di woy ci li nga xamante ne ci langue bi pour une première fois au Sénégal ñu gis loolu ku ñuy tak nga daal di jël micro bi di woyal sa bop mariage bi nak daal dinay fay tass waye dafa melne ki nga xamante ne mooy Pendo Guissé yëgalu ko yaram ndax ñi ngi gis ay sinabam ñi ngi gis ay vidéo muy def lo xamante ne macha allah di dund suukar bi di dund amour waaye teewul nag euh, li nga xamante ne mooy critique yi ak détracteurs yi ñi ngi dégg lu nekk ci li nga xamante ni mooy réseaux sociaux yi waaye ba tey rek am na moom moomee nga xam ne mooy pend Guissé li muy rëccu ci sëyam boobee Viviane sam naka noonu dem na fa fële nga xamante ni mooy États-Unis ànd ki nga xamante ni mooy doomam di Zeyna Ndour gis ngeen ko noonu sinap bi ñaaxarañ loo di leen filmer gis ngeen ko noonu ñoom ñaar ñu nekk fële nga xamante ni mooy États-Unis lépp rek di waajal li nga xamante ne mooy festival bi parce que célébrité yu bare bare ñu nga foofu ca États-Unis Aïcha ba tey ñu jëm ci wàllum actualité yi gën a fës son excellence jamono gi ñuy wax ak yéen mi ngi fële nga xamante ne mooy ci Abuja ñu accueil ko nag ak accueil bu chaleureux accueil bu cordial ba tax na mi ngi koy génnee fële nga xamante ne ci page Facebook am di jaajëfal ki nga xamante ne mooy président de la république ba fa nekk waaye aussi gis na li nga xamante ne mooy seen aada ak seen cosaan ak seen culture soo xoolee accueil bi ñu ko def fële nga xamante ne mooy ci aéroport ba macha la yemu ca daal dina ci tek ay baat yu am solo di leen jaajëfal ndax nee na gis nga li nga xamantene moy culture dafa bax ci rawati na fofé nga xamantene moy ci Abuja gis ngeen akay bi nga xamantene def nañ ko ci mu nek en toute complicité ak ki nga xamantene moy président rew mu don lo xamantene amna solo lol parce que ngi gis ni ki nga xamantene moy son excellence mi ngi def ay jégo yu am am solo am ay démarche ak ay projet am lépp rek ci ñaatal li nga xamantene moy Sénégal wala sax pourquoi pas Sénégal émergent ba tay dañuy wéy di wax ci li nga xamantene mo jëmaat comme ni ma ko don waxé sank pend Guissé ak walum divorce bi gis ngeen ko noonu ca mariage am ba fa Mbathio Ndiaye demee mu koy ñaanal naan kan dem leen ngeen sëy yi gis ngeen nag tey jii relais bi Mbathio moo nekk ci li nga xamante mooy ci buum bi futur ak ki nga xamante nañ ne buzz bi jamono gi sur la toile ñoom ñoo koy yox parce que li ñuy wax saa su ne célébrité amul vie privée ba tax na ñoom lépp loo xamante seen vie la naam ak luñ ko nëbb nëbb nëbb du tee li nga xamante ne mooy réseaux sociaux dañuy jël li nga xamante ne mooy seen wàll comme ni ñu jëlee seen wàll ci kaawu Penda Guissé waaye aussi ni ñu jëlee seen wàll ci kaawu Pape Cheikh Diallo ak Kya Aidara ñi ngi naan tasul ñi ñi ngi naan Kya da koy chantage ndax ay vidéo yu doy waar yoo xamante ne këram da ko daan def ñu daal ko koy envoyé gannaaw bañ ko agressé fële ci États-Unis waaye lépp lu ci rotaat lépp luy actualité palpable actualité bu ñu war a ñu xolaat lépp loo xamante ne gën na fës waaye bu leen zappe benn yoon andil na Dakar instant lépp le fii lay xewee ci lépp loo xamante ne actualité jërë ngeen jëf. instant rek yaa ma gën a xam. man xawma ci kaw lañ jugee man dama jéggi saay rek gis leen ba pare foo tourner Dakar instant ngay gis. mais loolu ëpp na Dakar instant ca kaw ca kanam rek. waaw ah Dakar instant daal gis naa seen caméra bi ni mu timmi nii xam naa ni bëri na doole trop ba mënuma xol bu baax damay pis pis di pàcc pàccal nii. waaw Dakar instant maa ngi leen dama leen di suivre si page c'est page YouTube dal wa Dakar instant moom bo xolé ñom sen tour rek day woné lool ndax chaque instant c'est le bonheur. monsieur le maire lo wax ci Dakar instant. Wow, c'est une première mais ni ma gisee Dakar instant fay prouver ne ko Dakar instant ci kanam la jëm inshallah ga ñu koy suivre Dakar instant lan leen lay wax na gaay dem abonné loolu bëgg ci actualité ñew lañ ci Dakar instant. sa liggéey rafet na trop macha allah. Mbacke loo wax ci waa Dakar instant. waaw Dakar instant nag moom ñoom dañoo xew ndax bañ naa ko chaque jour bu ma xee information yi may soxla yëpp ñoo ma koy jox muy dugg ci YouTube bi da ko xool rek. looy wax ci Dakar instant. mais jàmm. loo wax ci Dakar instant. waaye Dakar instant na fi nekkal Baye Fall na fi war a siiw comme ñëpp. wax ci Dakar instant. Dakar instant yéen a ngi instantané. boo yeewoo moom laay seetaan.